asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu xam naa wax ci actualité rek ci xew ci dëkk bi ci njàng meek lang beek coow yu bari yi ci am tubaab lang bi nekkul moo bon tubaab tubaab lu yor jikkoy tubaab moo bon naar itam jàng arab bunut waaye naar naar lu moo complex moom la ciy bañ sëñ Tuubaa complexe la bañoon ba sos dëkkam yi yooni kaw kaw waaye teel bëgg na jàng bëgg na jàngale li may wax nag daam ku ñuy wax euh, Père Senghor dafa ma suñu suñu blaat ne ko yow damaa gis ni nga bañ a mag bañ a parce que jaxasoo na ma ak ñoom mu ne ko su pexey tubaab ñoom bàyyi rek la ñuy ñàkk noonu nag dënd li am bay ngir bañ nag tubaab tubaablu man mi mas sama ñëw ci moom am ku ñuy wax Cheikh Jaxate wéradi wopp ma ñëw ci bi di ko sàkkul ñaan ni ko diw feebar waaye damaa toroxal ba tot ni cim yaa ma bett yaa ma rusloo mhm. wopp wax kon ñoom lii tam muy eh, li ñuy wax di tudd sëñ Sadio sëñ Sadio moom kenn gënu ma ko xam moom sëñ Blanc moom xam naa leen maîtriser na mm-hmm. wax naa la fam jaar ak région bi mu ko teg mm-hmm. sëñ Sadio daa amoon ku ñëw ci ne ko am na ganaar gun nañ ci dëkk bi bay buuf te bu toj teel nag yaay gàddu responsable mu laaj ko lu mu doon mu ne ko école tubaab yi ñu fi tax ba koy doog ubbi te yëg ca la tànge jër laaj caabi ya ñun buñ ko sopp ay daara alxuraan bu dee jàngatoo man am naa ñaari doom yoo xam ne am nañ master am naa ñaari doom yoo xam ne am nañ licence am naa ñetti doom yoo xam ne am nañ bac waaye nag dañoo jàng alxuraan ba mokkal jàng xam-xam dugg ci tubaab bi kenn mënu leen a soppi sëñ Tuubaa nag lii la bëgg ci dëkkam hmm? diine njaboot gi fi bàyyi nii lañ lii lañ bëgg ci ci ci lii lañ ci dëkk bi kon nag xanaa ñëpp war na ñëw la ñu nekk ci lool ndax école publique bu fi amee ci dëkk bi am na école publique waaye daru mën naa la ne ko mën ñoom foofu dafa dafa nekkoon centre boo xam ne dañoo bëggoon lépp lu aju ci politique lépp moo tax suñu dox fa arrondissement bi loolu yem foofa bañ a dugg ci Touba gi benn leen loo fa gis nag ay dëkk la woon yoo xam Touba Touba dem ba ëmb leen waaye biir tuuti foofu sëñ Touba sëñ Sadio ba guub ci woon kon nag ku mën a yar sax njaboot jàngal leen diine jàngal leen alxuraan ba duñ am genn soppi ko luñ jàng du leen soppi hmm? fii itam koo fi jëlee yóbbu ko biti réew mu jàng ay arab te xamul ne ci tu baayam mën naa soppeeku foofa nit ki nag li nga dund danga koy suuxat ci moom ba ba màgg nga doog ko xamal loo koy xamal lii la sëñ bi bëgg lii sëñ Tuubaa bëggoon bi sëñ Tuubaa tukkee ci géej gi dafa am ci rakkam yi kenn xam ne dafa jàngoon tubaab ngir bañ ñu nax sëñ bi ngir lu ñuy wax mu nekk mu nekk di def interprète diggante yi bi sëñ bi ñëw nag mu ko leeral ne ko bi nga fi génnee de dañoo jàngoon nasaraan ngir bañ tubaab yi nax la waaye sëñ bi amul soxla ci loola yére yam sol la am soxla ndax yére day yére naar mu commencé kat ko xotti ne ko naar yii ngeen di roy naar yi ngeen di sol seen ak yére ñooy lantinoore tubaab bi ëllëg bu ñu yàq di bu ñu yàq di ci ñoom lañ koy jaare bi tubaab yi dajee itam Afrique de ki ñëw ci sëñ Tuubaa ne ko danoo bëgg eh, dina jëpp doon benn nga jiite ko la ñu waxoon bi dañoo bëgg diine doon benn nga jiite ko bi sëñ bi waxtaanee ak mag ñi lépp ah, ñi ñoo xam sa gëdd lii kay ñëw moo war a nekk <laughs> moo war a nekk mu ni déedéet dañoo bëgg a yàq diine te jiital ma ci loolu nag xam nga nu deme mi ngi nga boole diw akum ndox diw akum ndox mm-hmm. lenay tax ñu jaxasoo ngay dëkk di yëngal te yëngal kenn mënu cee yàgg boo teg suuf rek loolu kon li ñu sëñ bi bëgg ci noonu tasuse ko dëkk bii doon daw ak tanasur ak tubaab tubaab la ak naar naar la ñëw ci kaw gi def ko tam jignu nañ ci ne ba ndax arab jàng njàngu diine la njàng pour xam diine tubaab ngir am àdduna la kon dara dara dara dara dara dara waaye li ci bon nag de tubaab tubaab lu ak a naar complexe moo ci bon te lii dañ bañ <laughs>